PT benn ak point e benn fukki malade yi ñu entré woon hôpital wér nañu bës ni ki tey ñu dinañu génn bu ci yàlla àndee juróom benn malade ñoo nekk réanimation amul benn malade bu ñàkk bakkanam bu su démb dibéer ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru novembre bi nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaabu njëkk ba Sénégal wàññi na fukki junni ak juróom benn ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent ci ñi xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fukki junni ak juróom ak juróom benn téeméer ak juróom-ñaar wéer nañ ci ñetti téeméer ak fanweer ak ñett ñoo génn àdduna mu des téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett si lalu hôpital yi ak ci loxo docteur yi du ministère de la Santé et de l'Action sociale de ce lundi 30 novembre 2020. Le ministère la Santé l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 722 tests réalisés, 14 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 1,94%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons cinq cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et nous avons noté également cas issus de la transmission communautaire répartis entre Grand Dakar 1, Kermassar 1, Liberté 6 1, Mamel 1, Mermoz 1, Ngor 1, Norfoire PT1 et point E1. 10 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 6 cas graves dans nos services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce dimanche 29 novembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 16 089 cas ont été déclarés positifs, dont 15 607 guéris, 333 décédés et donc 148 patients sous traitement. Le ministère la Santé l'Action sociale souhaite un prompt rétablissement aux encore dans nos et également à ceux qui sont suivis dans Le ministère la Santé et de sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective tout en leur faisant